tànn mbër dana valoriser mbër bi mais mbër mi ko neex maa nga jël ko teg ko ci sawet ngeen toogandoo waaw non non jarul teg sa da nga ko naan ni mu non na jiitu kay na jiitu mais ko noonu la def joomaay da ngay gis ne dafa jiital joomaay loolu la nit ku ku teg kon dil bi yëpp boo xoolee parce que man damay tàmm xam nga man lu may far-far nii bu may analyser mhm. sama par fële laa koy teg man moo tax mënumaa mérité ci parti mënatuma am milité ba mu démissionné PDS ak léegi élection yi ñëw nag ma tànn. parce que problème mooy bu la parti tënkee tuuti wala ay affaire boo toogee yow dootoo lucide te man suñu famille sax mënu ma faa par parloo. voilà bay par parloo ci. léegi saa dañuy dañ dañ may daal di euh, may ci boobu la ñu daal di ñëw ci 120 euh, ñi nga xam ne député yi nga xam ne ñoom ñoo daal di opté boobu la mbir mais laata loolu. Mhm. comportement wu euh, Mame Diarra Fam envers Thierno Alassane salo aussi ah, nga faw ñu daal di ci faw ñu daal ci ñëw. parce que tamit ab député mënoon maanaam. bien vrai que ne mere nañ ko comme li nga waxee tantôt mais waruñu woon a yegg si ci. di wër di dóore euh, voilà gêne yi nii. ñu dof euh. de situation dem dama toog di seeraam si yàgg ma ne mu gudd tànk. ah lu tax nga wax loolu ah, waaw as as ah, mais biram tamit am na <laughs> mu gudd tànk mais c'est vrai seeraan ba si yàgg <laughs> Pastef mi daan xeex. PDS <laughs> ne ci ruxam toog tranquille croiser les bras yenn saa ñu génn ne la. yolaan yolaan Kamara xam ne dafa dafa doyaar nee na moytul àtte gi. Mhm. cat dafa gaaw. te dañoo war a campagne. Eh, yow gisoo góoram su léegi. waaw ndax ko njëkk a téye. waaw xam naa rek xam nga loolu tooñ la. voilà parce que am na ci boo béy dinañ bi nu muy campagne yi de. dëgg dëgg non non buñ ñu tooñ nag. ñun amuñu jot dëgg yàlla wax nañ dëgg di mari xoolal. ma leen rek na saytaane. ah déet. ah, ah non non atte gi lañ war a bàyyi xool xool nañ atte rek démb du man la koy wax. waaw la man bu doon may wax bu doon mën a bu doon a bu doon mën a bu doon mën a bu doon mën a bu doon a bu doon mën a bu doon mën bu doon mën a bu a bu ñu tàmbalee xeex ñun ñëpp dañuy def benn bloc génn déedéet dañuy génn. génn waaw génn. dafa génn. non xool leen xool leen dóor bi dóor bi nga xam ne dóor nañ ko Birame Souleye. ba pare di di di daraam ju rëy ji. loolu laa lii daa wóor mais maire bi tamit lii lan la luy dóore. non di dóore nit non non Thierno Alassane la bëggoon dóor far nag Birame Souleye pousse na Thierno Alassane xam naa gisul nag mu dóor mu dóor Birame euh, honorable député li wóorul voilà. wóorul nañ moytu nañu waaf lii xoolal xam nga bu doon waa Pire ba ñuy xeex sax nga ñëw ki mën nga ne jar na ko. waaw bu fekkee mais yow fii boo ñu waxoon bañ xaañ du ko jar de wax dëgg yàlla du ko jar. man nag euh, salué naa taxawaayu Thierno Alassane Sall. parce que waaw koy nettali. Mhm. dama ne mbaa def na ni parce que man moom même d'habitude sax même jigéen man loolu laay kii quoi parce que jigéen dafa sensible. parce que gis nga bu ñu lay wax légitime défense bokkut. doon góor jigéen ñëw di mbaj. wala di la nga jël téye ko baare ko ba pare jël sa kurpañ ne ko teel loolu légitime défense. moo tax mhm. dafa xaw a doy bu yorut arme rek am na loo xam ne mayuñ la ko. bon li mu yor nag daal la arme la tamit mais man daal nañu nite quoi. surtout loolu mel ni dëpp nekk. ci kii bi di wax la yow li la métti ku la ko teg. mais li si dama dugg si si làmb <laughs> waaw mais mais beneen bi mooy yëg leen yow yow am na li nga bëggoon. Mhm. ubbi dem ci enquête. ña nga taxaw di ko teg. moom mhm. kenn la. Mm-hmm. la preuve en est que ñaata député ñoo ko voté cent vingt. waaw kon kay fi Thierno Faré. Mm-hmm. nangam yow wala kon da xam ne yow li nga dugal amul njariñ même buñ ci defee nangam xam nga bu maanaam dafa am lu Thierno euh, kii waaye maître Amadou Sall moo ko waxoon sëñ ba doon yoroon àtte ba. Mm-hmm. Euh, Henri Grégoire. <laughs> te te xam nga daf ko lakkaloon nag. daa lakkaloon euh, Henri Grégoire ci procès Karim boobu. Euh, waa ji xaw ko kii noonu am lu mu ko wax maître Amadou Sall ne ko cin cin du du du daa kii di baax nangam gaay lakk. Mm-hmm. maanaam cin buy baax. maanaam kat gaay lakk. waaw ko. xam nga. Mm. xam nga nga. Mm-hmm. mais pour mu wax la ne yii di am nii yépp mm-hmm. mooy wax ji mooy nga xam ne élection yi mënoo ci dara. mënoo tee am. da ngay bëmb ba pare ak taxawaay bi magistrat yi taxaw def bloc ci kële ba pare kële porté plainte mais plainte bi kooku porté. Mhm. mais loolu rek dakkal na li voilà dina ci ñëw ki bëgg kuñ fanaan. foo fanaan. Mhm. kiy bëgg euh, ku ko wettali. tëjal bunt bi du leen. du leen boole mm. effectivement yow doon nga bëgg ñu lañ bët ko. Mhm. nee nga kii daa ger ba noppi seen kii bi nag kenn si wu ko. ay tappale yoo xanaa moo. fa fa fa déclaration non signée. démb déggoo fa waxu ger lan la ñuy wax wax yi ak élection wax da ngeen a soxore. waaw ñoom yooyu voilà iñaan iñaan ñi non problème bi mooy xam nañ kan moo koy signé dañoo dof Karim Wade dana toog fële ci kii bi moom bu ko neexee toog di la kii nga daal ñëw signé affaire bi yow ëllëg yow ñu di la. Euh, topp voilà moo tax déclaration bi kenn signé wu. non kenn signé ko dof. voilà mm. moo tax moo tax mu porte plainte. ko la gën a xam waxatuñu waxu. goloo la gën a xam kër gu bëri xaj. c'est-à-dire créer nañ contexte maanaam waxu waxu corruption bi créer contexte la rek ba indi. Euh, mën a mën a mettre en place commission d'enquête parlementaire bi. mais actuellement waxatuñ lu jëm ci maanaam. nekk nekkoon au début ah, ah, waxatuñ ko mais léegi waxi ak élection léegi ak élection ci ban base voilà mais aussi euh, Momo ñi nga xam ne ñoom ñoo adopté euh, boobu li commission d'enquête parce que Pastef wala Yewwi Askan Wi dañoo daal di. taxaw taxawaay boo xam ni maanaam laale mu ci benn yoon mais le cas de APR wala benn bokk yaakaar mun naa ko xëy ni mel ak euh, taxawu Sénégal une partie euh, ci taxawu Sénégal aussi ànd nañ ci ak li ni ak PDS ñu def benn coalition ñoom itamit ci biir assemblée nationale daal di jàllale loo xam ni mën na indi ay conséquence mën na indi ay conséquences. Euh, mhm. ci li nga xam ni moom mooy élection présidentielle yi. man laaj nga loo ci comprendre. loo ci comprendre dara <laughs> <laughs> non parce que Sénégal tamit loo fi nekk di yeewu yeewu tam di xool yenn saa da nga gis lu la jaaxal loo xam ne doo ci comprendre dara. mooy PDS moo doon xeex ba mu yàgg. Euh, benn Bokk Yaakaar moo mel ni daf koy fekk si biir xeex bi taxaw Khalifa Sall nga xam ne récemment la génn di wax élection bi dañ koy tenir dañu respecté. non ba léegi mi ngi koy wax mi ngi koy wax kenn kenn reporté waaw léegi mais yow ñi ngi yow ñi ngi. mais kenn ci pare kenn ci pare voilà PDS ca di ko dimbale. pare xam nga maa la ko wax xam nga la ko ni ñoom ñaar ñi koy dimbale noonu lafañ <laughs> war a lu mbaam xam nga lu tax ñoom ñaar kenn pare bu élection yi amee loolu ava la nañ ne dañuy ñàkk c'est ça PDS mi ñu xañ dem bëgg a bokkaat sax xam nga PDS tey su ñëwoon woon biir sax mooy tane sax taxaw mhm. loolu mooy wax ji te moom li ko xañ mooy moo xañ boppam parce que moo kàcc kàcc yu rëy déclaration sur l'honneur fi ne nii kaso la waroon a jëm li daal Thierno Cissé moo ko waroon a daal bi loolu beneen bi tamit APR di jéem a nuyee benn alliance moo tax li gars yi naan mosuñoo réeroo non non problème bi mooy am duñu wax. Mhm. parce que tamit fa ñu wax euh, dëgg parce que dafa am. lu ah, mais est-ce que tam ñee tam leen foowee parce que yow. moom lay. jógee soo paree ñëw ànd ak moom loolu même chose. Euh, na kenn koo xam ne waxtaan naa ak moom koo xam ne PDS nekk ma ne ko pourquoi yéen à chaque fois euh, si leen prison Macky Sall tegee leen ba ngeen kaas ko bu woote waatee day rencontre ngeen dem mu ne euh, faw ñu waxtaanee ko parce que. Euh, dëkk bi mais aussi waxtaan ak. ko xam ne <laughs> lu mas am ci àdduna gat sa gat saa ko ko may Abdou Diouf ak Wade bi ñu fiy nekk. Mhm. Abdoulaye day xeex ak man ba ne saay. Mhm. table de négociation buñ cay toog Abdou Diouf ay taxaw bu ko defee moom mooy gën a am marge de manœuvre. Mhm. pour ñu def respecter isoloir am ci Sénégal. lu bëti laa du yu leer a tax. gat sa gat saa ko may. encre indi libéré gat sa gat sa la. kii bii ñu teg onel moo amoon sena bi am nii. Mhm. gatsa gatsaa ko maye. Mhm. fii gatsa gatsaa fi maye la démocratie. Mhm. kenn du ko kemaande. maanaam lees di foqati dañ koy arrasé. loolu mooy dëgg moo tax lii Pastef jël ak Ousmane Sonko fii mooy mbir mi. beneen opposition nag bu jàpp naan ay pacifique ak ay loolu ay tappale la opposition mooy kujje. bu nit ki ñëwoon defar jamaa sax. nga ne ko non jamaa bi tali jamaa sax nga ne ko non tali jamaa bi ni nga ko defee nii ejj bi nii mënoon naa gën a kii man suñ ma joxoon dinaa gën a defar lu wax da ngay proposer. dara di opposer nit loolu mooy opposition. opposition neexul nekkul waa ji defaree BRT bu xat bu bon bi nga naan non pourtant liggéey na am na bilan te fekk bilan bi du tous nañ bàyyi mm. seen caaxaan yi. voilà ba léegi ci boobile euh, mm. ci boobile mbir. Mm-hmm. Euh, ci wàllum commission d'enquête bi nga xam ne euh, assemblée nationale adopté na ko te xam naa ndiki tey lañu war a tàmbali liggéey bi. Mm-hmm. nga jëm ca lee mbir mais ñu gis ni benn bokk yaakaar. sóobu bi nga xam ne sóobu na ko ci cela veut dire que ne report ñoom loolu lañ bëgg ndax Seydou Gueye député Benno mi ngi wax que ne. Euh, assemblée nationale maanaam ñi nga xam ne waaye conseil constitutionnel du Diouf autant pour moi mm-hmm. député euh, benn bokk yaakaar mi ngi wax que ne euh, ñi nga xam ñoom ñooy waa conseil constitutionnel suñu bañee maanaam euh, wuy ji ci convocation bi nga xam ne ñu ngi leen koy woo maanaam commission d'enquête parlementaire mi ngi leen ciy woo. Mm-hmm. nañ jàpp ñoom duñu simmi malaanu kiiraayu député yi député yi nga xam ne. Mm-hmm. ñoom euh, conseil constitutionnel moom la daal di porter plainte la rek. mu nekk ab menace boo xam ne euh, ñu ngi koy def ci waa conseil constitutionnel. nan nga jàngatee la ko li théâtre la théâtre comme théâtre yi ngay seetaan nii parce que cest à yow ki ngay wax nii moom ci boppam moom muy wax moom xam na ne moom mënut a convoquer ñeneen ca conseil constitutionnel. pour man c'est-à-dire dañu ñun la ñuy foowee léegi ñoom la ñu ci li ñuy def moo xam ña bokk ca taxaw di ci jàpp. moo xam ña te sànq li saa wax dafa am solo. mooy dañoo jëm ci élection boo xamante ne ni dafa am ci candidat ñoo xam ne jékkiwuñu élection bi. démb rek maa la jox fii exemple c'est-à-dire. Euh, ba ñu nekk ci parrainage bi dama ne la parrainage bi sax baax na benn côté parce que. Mhm. bis boo gàddoo sa benn liste wër ak moom ñetti fan mënoo lee mënoo mënoo matal diis yi. Mhm. boo bëggoon doon candidat da nga dem toogaat. Mhm. actuellement loolu moom nar a nar a xewaat ci euh, campagne yi maanaam balaa campagne bee egg ci terme bi sax da nga gis ñoo xam ne ñoom di leen a dem toogi xam ne élection yi du seen bos duñ jël première duñ jël deuxième duñ jël troisième duñ jël quatrième mm-hmm. et loolu dafay nekk problème mooy sondage bi gën ci sondage yi mooy nga nekk candidat wàccal sa bopp si terrain bi wëral sa bopp dugg si biir dëkk bi sondage bi gën ci sondage yi loolu la natt sa bopp mm-hmm. ñaari fan boo ko defee yow war ngaa xam yow mii ndax war ngaa mën a mat président wala war ngaa mën a jël deuxième wala war ngaa mën a jël troisième. Mhm. ci contexte boobu nag am na si ñoo xam ne xëy na natt nañ seen bopp ba xam ne élection yu jekkuñu ko. Mhm. le cas de Karim pourquoi exceptionnellement mu war a am benn candidat boo xam ne moom ñi ñu recalé bëri na mais kii moom kenn amul droit recalé ko forcément dafa war a bokk ci élection présidentielle yi. Mhm. ñu dem ci ba di ci teg tuuma ci ñi bokk ci conseil constitutionnel. Eh, dem ba jóge foofu mu mel ni euh, tey Benno Bokk Yaakaar mi nga xam ne moo waroon opposé wu ci loolu. ba moom mujj ànd ak moom ci loolu. et pourquoi te pourtant seen candidat lañ ca jublu nag. Euh, ndax dañoo bëgg reporter bu fekkee dañ ko bëgg nañ jàpp ne loolu vanité la parce que c'est impossible. kenn mënut a renoncer euh, kenn mënut a reporter élection yi ci base boobu. conseil constitutionnel bi nga xam ne moom la ñuy wax ne dañuy dañuy dañuy dañuy dañuy. attaqué ñenn ci ñu ci bokk ci set charge yi. mënuñ ci ñoom dara ci contexte bi président la république ci boppam mënu ci dara assemblée bii nii li ñuy def ni damaa jàpp ne xëy na alimenté débat la indi coow ci biir réew mi ak wax ju bëri mais jàpp naa ne li leer ba leer mooy ni ñu focus sa jàpp ne élection présidentielle dinañ ko tenir. ci bisu février 2024. et c'est ça ñu jàll ci leneen. voilà mi ngi noonu nag mais euh, Saa Wolof euh, ñu gis que ni euh, pourtant am na épisode yu métti yoo xam ne jaar na fi surtout bi nga xam dafa daal di marqué ci assassinat wu vice président bu conseil constitutionnel di maître Sey ak tamit démission bi nga xam ne juge juge Kéba Mbaye def na ko et pourtant boobu lay mbir taxul ñu reporter élection élection am na et pourquoi tey amul benn menace boo xam ne. tegu na ci réewum Sénégal jamono jii nii ñu bëgg a forcer les Sénégalais à ce que wala forcer euh, conseil constitutionnel pour euh, ñu daal di li nga xam ne rek moom mooy élection présidentielle yi. non c'est que élection moo duti caaxaan parce que mooy wane ne ñun Sénégalais yëpp yow la ñu wóolu pour nga joxal. Mhm. doxal mbir mi. Euh, damay jëlee loolu rek mais bi fi corona duggee Macky Sall dafa am pour. Mhm. dem ensemble pour ñu nangul ko ay. gëd loo sañ-sañ yoo xam ne dana mën a tax mu téye nit ñi ci diir duñ génn buñ génnee ñu jàpp leen wala nangam nangam ak yu demee noonu. Mhm. loolu yëpp li ko may mooy légitimité parce que askan wi ñoo ko fa teg. Mhm. beneen muy ensemble bi ko defal ñoom it am légitimité parce que askan wi ñoo ko fa teg. man damay sànq sax li ñu doon wax bay wax naan comme li Seydou Diop doon wax naan gars yi bu fekkee ne kii dafa convoqué. sañ mhm. ensemble sañ na convoqué ku ko neex. président de la république sax ensemble sañ na laa convoqué. mais par contre bu dee euh, conseil constitutionnel. pour bu nga mhm. mu ñëw. ñoom ci seen bopp dañuy dem ba gis ne ci conseil bi ci boppam dañuy gis ne war nañoo mën a ñëw. Mhm. loolu daf ci nekk. mooy faw ñu xam ne war nañoo mën a ñëw ci mbir mi. Mhm. doo koo yaxal pour dem. bi ñu toppeelee maanaam loolu li mu lay wane mooy tey bu fekkoon ne tey dafa am ger ger boobu am ci biir. du neex justice bi parce que ñaata nit lañ fi jàpp parce que dañoo jàpp ne dañoo. outré magistrat yi wala nangam nangam parce que mm-hmm. dañ leen a yàq seen dem mm-hmm. mais outrage boobu bu fekkoon dañ ko def benn magistrat ba pare ndekete ñàkk jom googu magistrat bee ko def mm-hmm. ñi mu bokkal kuréel ñoom it du leen neex kon dañ koy bëgg bu dem ci justice setal boppam ndax dafay tax dafay pour ñu atte ko pas setal boppam sax maanaam ñu dem ci ñu teg ko ci yoon parce que loolu mooy yàq seen kii léegi par contre mooy ñii ñu tuumaal am nañu jàppale seen ay kii parce que dañoo gis ne dañ leen a tooñ dañ leen a wayee di loo maanaam comme mooy di dañ leen a bëgg mooy comme li li li kii doon wax joomaay colossardisation te gis nga li leen yàlla at mm-hmm. tey loolu la nit ñi di def moo tax gis nga Macky Sall <coughs> du mbokk du xarit déjà sax buur moo dul mbokk su ko su ko wolof di wax mm-hmm. mooy buur am na fu muy toll bu rawatina nag ku dem ba jàppe boppam buur bu ñuy wax loolu mën nga ci jàppe mm-hmm. président mais ku dem ba jàppe boppam buur mooy bu demoon ba war a mën a faagaagal njabootu boppam sax da koy def pour moom boppam parce sa bopp sa njaboot sa nangam nag bu fekkee loolu ngay gis da ngay dem ba yow ak bàyyi may yéenay bokk yam mhm. léegi nag foofu dangay gis ne li mu def hésité wut pour ñu salir deru nattaangoo sénégalais nay opposition nay keneen ak keneen noonu. Mhm. fi mu toll nii jomb ko ñu taqal der Amadou Ba mi nga xam ne moom la def. candidat mhm. parce que loolu la mbir mi di wane. mais léegi magistrat yi nga xam ne tey. institution la ñu nekk troisième institution mhm. dëkk bi te ñu daan wax naan magistrat yi dañ leen a war a kii dootuma nangu ku nangam nangam tey yaa ngi nag ñuy leen yàq seen der kon problème bi mooy ensemble sax moo ëpp gëdd bu fekkoon ne def nañ li ñu war a def député du caaxaan de mhm. moo tax askan wiy fal ay député mhm. maam nañ fexe ba ni ñuy falee député ñu changé ko def ko kenn ku nekk sa waa gox di la fal mais ku ñuy fal nañ ko xool xoolaat ko parce que député dëgg-dëgg moo war a ëpp gëdd même magistrat yi. Mhm. parce que ñoom ñoo fare kaw. magistrat yi maanaam bu présidence mooy institution. pas sax mhm. président président du institution. chaque fois nga gis même gars yi def lapsus ak yooyu présidence la. Mhm. bu ñu nekkee institution ba noppi. moom nag moo koy incarner c'est lui l'autre autorité. bu jàllee assemblée nationale moo ci teg. bu jàllee ci la ñuy doogoo andi justice. mu teg ci. Mhm. kon ñoom ñoo ëpp gëdd mën nañoo woo ku leen neex. Mhm. muy Macky Sall di justice wala yooyu mu des ci lan nga leen wooyee. lan mhm. leen wooyee tamit dañ ko tënk. loolu mooy li nga xam ne moom moo fi nekk. kon tey waaye di loo googu nga xam ne tey ñu ngi ko bëgg a waaye di loo justice bi. faaw justice bi da koy nangu ba pare doogu wuy ci. kon li Seydou Diouf moom mu wax. Seydou Diouf problème bi nag dañoo bëgg indi na problème am na. gis nga boo gisee maam Diarra Fam démb bu jëlul ko itam di dóor pour wane ne tension am na. Mhm. maanaam loolu ñoom bu ñu sañoon. te tension réew mi sax noonu la ñuy mel. tension day am ba ñu ne na non non dañuy xam mais taal bi. taal bu taal taal boobu ci ñoom la yem voilà ci ñoom la am maanaam xam nga yaa ngi taal taal bi yaa ngi kii mi ngi mel ni rek nga xëy jigéen gi jotee jëkkëram. li muy jëkk a def mooy bu ko dee may ndox jékki-jékki bàyyi ndox mi mu tuuru. Mm-hmm. wala jékki-jékki bàyyi kaas bi mu toj. jëkkër mm-hmm. ji bu nee nii bañ koo faale xam ne daf koy wut. loolu la Sénégal nekk ak ñoom. fi mu mm-hmm. xam ne danga may wut ma ne pat mu jékki-jékki taal kii xam nga lan lay jël xëcc doom ji mbaj teel. waaw nga daal di continuer la pat ne doom ji yéen ñoo ko bokk jur rek. maanaam foofu la Sénégalais yi di yegg ak moom. xam ne lu muy yàgg-yàgg. danañ dem élection te bu ñu demee élection bu la fi jëlee saw ay jeex na yow dañ lay lijjanti mais dootoo lijjanti kenn. voilà loolu mooy nekk li nga xam ne. Mhm. moom mooy am te loolu mat gu Sénégalais yi mat la. Mhm. fi ñu toll nii ak yëpp a ngi réunir moo tax ay li Seydou wax naan ay nangam liñ bëggoon bëgg crise am. crise fi amut. parce que foofu noonu ñu ngi koy wax ne ko da ngay nangu bi ndax ñu nangul la bi voilà comme loolu rek laa xam loolu du problème nga maanaam li muy wax moom mm-hmm. kee xam nga tey moom laay wax yow dangaa bëggoon a ubbi enquête parlementaire nee nga ndax juge sàngam dañ koo giiñ juge sàngam dañ koo giiñ juge boobu ñëw ne dañ maa giiñ yow ñu ma giiñ li nga ma giiñ du dëgg nañ dem ci yoon yow da nga koo bëggoon a yóbbu ci yoon pour ñu lijjanti leen mm-hmm. te yow pour ñu lijjanti leen faaw enquête parlementaire am Mm-hmm. wàcc daanoo ci gën a gaaw yow ki nga doon giñ nee la nag yow far na kaañ dem ci yoon ñu lijjanti ñu. kon problème bi mooy enquête bi lii ñuy def seen théâtre bi nekk ensemble dafa waroon a dakk parce que li nga bëggoon am na. ok plainte plainte plainte juge. juge bi waaw moom nu ñu koy def. déedéet non non moom laa doon wax déedéet benn la maanaam juge bi xam nga mi ngi mel ni. bi kar euh, kii euh, Ousmane Sonko doon kii Mamour Diallo ci affaire u quatre-vingt-quatorze milliards yi. pour ñu ubbi nangam ak yeneen ak yeneen. Mm-hmm. yi Karim Wade yóbbu la ci yoon parce que yow tey voilà gis nga boobu Ousmane Sonko bi mu demee jéebaane euh, ko. Mm-hmm. kii wuñ ko léegi yow da ngay saisir am na nu koy tuddee nga xam ne yow da ngay am na nu koy tuddee nga xam ne da ngay dem kii juge bi nga xam ne juge d'instruction. moo ko mm-hmm. ciy ubbi. Mm-hmm. mais bu boobaa nag projet boobu bu ngeen ca demee boo juumee dañ lay tëj. xaw ma ndax comprendre nga fi may waxee maanaam am na lu ñu koy tudd seen jargon juridique yi tur bi laay laay laay fàtte maanaam tey nga daal di ñëw dénoncer benn affaire xam nga boo ko dénoncer ñu dem ubbi ci enquête su paree yi dara du la ci fekk fekk mais am na nooy constitué am na nu ñu koy waxee waaye noo xam ne yow da ngay dem yaay appuyer euh, juge waaw d'instruction moom moo ubbi ci léegi nag foofu conséquence bi waaw kay amul dëgg rek waaw ci conséquence day daal sa kaw day tey jii mooy lii juge bi def hmm. ci diggam ak euh, Karim Wade. Karim Wade mm-hmm. léegi tey yow Karim da nga doon wàcc daanoo ci gën a gaaw da ngaa bëggoon ñu ubbi ci. voilà ab enquête. Mm-hmm. léegi yow kële gën na laa dee moom nee nga moom daa ger léegi moom nee na kii porté naa plainte parce que nee na damaa ger léegi nag bu ngeen demee ci tribunal yow da lijjanti yow ba xam fan. laa gere boo ko mënta lijjanti yow bu boobaa nag yow sa loxo dam ok te pourtant bu njëkk bi nga doon dénoncé da ngaa soupçonné woon waa ji ger. Mm-hmm. suñ demoon yóbbu leen ci yoon bu boobaa buñ demoon yóbbu leen ci yoon dara du la ci fekk yow Karim mais bu waa ji boo ko demee saisiroon juge d'instruction wala kii daal di ñëw porter plainte yéen a fay dem. Mhm. léegi nag suñ duggee ñoom ñaar léegi ñu war leen a àtte nag faaw dana am ku dul ñibbi këram. voilà mbir mi dina daal di leer. maanaam dana leer. ok da doon jaay sob rek. loolu la affaire bi <laughs> ba ci commission moo ñu wax nii meram gunóor la mënta weesu wokki sàkket xaañu koket ak yooyu yëpp dañoo bëggoon euh, kii am. voilà ay jeex jaaxal ñu ne ñu ngi ci crise ñun nekkuñ ci crise. ñu am na tension comme comme jamonoy Sonko daa war a. ñoom ñoo am tension li réew mi. émodi si mbedd mi réew eh, moom ñu daal di gis euh, neuf membre euh, ci boobu la commission d'enquête parlementaire te pourtant loi bi la mu prévoir mooy onze. benn bokk yaakaar sans doute six la waroon am yeewi askan wi am ñaar euh, ak benn non inscrit le reste taxaw seen taxaw Sénégal non pas taxaw sax wàllu lay daal di génne. Mhm. mais ñu gis ñu am neuf euh, membres ci boobu les commission d' enquête parlementaire. Mhm. ka jiitu di Abdoul